internet ñuy seetaan sur la TMS TV euh, ñu ngi fii nag ci biir cabinet euh, médical euh, docteur El Hadj mu Mouleye Sow nga xam ne kenn dootu ko présenté ah tey di àllarba fukki fan ak juróom-benn ci weeru février maanaam booy xool sax midi jotagul waaye nag toogaay bi mu toog toogaayu démb la démb ci talaata ji lal liggéey si fanaan fi ba tey gis ngeen ko tey di àllarba. ñu ñëw nag rencontré ko ndax démb ci talaata ji dafa am lu yéeme lu am fii ci VDN bi mooy fi oto yi jaar euh, dañu fekk benn doomu aadama di góor war a toll ci fanweeri at ñu boom ko boomin bu ñaaw def ko ci saaku def ko ci oto ñëw nag ba fële ñu déposé ko fa daal di koy bàyyi foofu démb fële mbedd mi fees na dell d'ailleurs am na yoo xam ne sax gis ngeen ko animage image ak TMS TV ah sëriñ bi nag Euh, ñu rencontré ko vraiment pour mu mun ci def déclaration ci ñaawteef bii nga xam ne ni am na démb te buñ ko gëstoo ba gëstu ko dara waral ko lu dul àll sëriñ bi kàddu gàngo macha allah alhamdulilahi rabbil alamin a unge bilahi min a seytaani rajim wala xawla wala xuwata illa billah ane azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokk jullit yi di nuyu mbokku taalibe yi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan à travers TMS TV di la nuyu doyen di nuyu Soxna Ngoone di nuyu Youssouf di nuyu Alseeni macha allah di nuyu Konaate di nuyu Diop ñoo ngi nuyu ñëpp di am nag naqar ak bi nga xamante ne vraiment depuis démb moom la ñu am mooy ndeysaan suñu mbokk suñu mbokk moomu. jullit boobu ñu boom fii mu nekk lu lu lu lu metti lu ñaaw sax li nga xamante ne man ba ma ko gisee sax vraiment suma yaram dafa daw depuis démb macha allah suñu xol neexul mu nekk lu doy waar li nga xamante ne adduna bi léegi dafa yàqu dafa doy waar alal dafa jiital doomu aadama yi am am dafa leen jiital maanaam dañu bëgg am am de trop dafa leen di dugal ci lu ne calculer loolu kii nga xamante ne ndeysaan trente ans la am xale la vraiment ndeysaan avenir la mhm. ñu boom ko comme ça yàq carrière am yàq carrière njabootam te dégg naa ne ndeysaan soxnaam sax vraiment jigéen ju warul la calculer loolu calculer lool rek xam nga macha allah Sénégal bu doon def dëkk dëkk arabe yi comme arabe saudi boo rayee ni ñu ray la mhm. defe naa rey-rey yooyu maanaam de dina wàññeeku mais boo waxee fii ñu ne c'est le pays de démocratie xaw ma nangam nangam ay droit de l'homme ak yooyu mel ni ki ñu rey amul droit calculer loolu ñu ray la ba pare daggatee la dugal ci ay saaku xawma ay carton hmm? def la ci dugal ci oto calculer loolu ah? loolu daal naqarul nañ ko bu baax a baax waaye nag ñi ko def moom yàlla da leen di weer ndax doomu aadama dafa foor bakkan nit doomu aadama dafa foor maanaam boo ko boo ko maanaam boo defee ñaawteef boobu noonu yàlla moo lay weer maanaam munoo làqatu sax parce que ku la gis day xam ne ne def nga njaaxum def nga ñaawteef waaw doo tranquille maanaam da ngay feeñ carrément lan moo ko fi jar nga maanaam alal jaru ko dara jaru ko vraiment la am nañ naqar tiis fii sax xaw na tane avant may ñëw dëkk si fii fii dafa bëri woon ay band yi fréquenté fii mais ba muy waaw waaw ay accident tamit mais wàññeeku na bu baax a baax mais nag ah, lii moom c'est la première fois defe naa ne côté bee tamit amoon na ku gaañ woon foofu ci wetu pont bi. dégg naa kooku ah? parce que euh, sœur bi. moom fii la nekkoon ci buntu kër gi di yuuxu di jooy ma hmm. jël ko di ko naxtaan hmm. mu ne sama mag am na ay weer dañ ko boomoon ñëw sànni ko ci suuf pont boobu démb rakk ji la woon démb loolu metti na xam nga ne loolu aussi ah ah loolu dafa metti moo tax fii war nañ mën a taal làmp yi xam nga mu mu gën a am sécurité parce que dafay lëndëm nag mhm. trop waaw dafay lëndëm trop dafay lëndëm trop fii xanaa sama sécurité sa ñoom xaw nañ jàpp si koñ bi bu baax parce que sécurité yi ñoom fii la ñuy fanaan ci biti te dañuy armé wu aussi yor seen arme xam nga mais fii dafa lëndëm moom vraiment war nañu jàppale euh, mairie bi n'est-ce pas mairie bi moo ko yor mhm. ah mhm. waaw mairie bi aussi euh, defe naa maire bu bees la ñu am léegi ah waaw ñaari maire yëpp maire Cambérène ak parcelle yëpp maire yu bees lañ am. ah waaw wax dëgg yàlla macha hmm. allah. te am na commissariat bu bees bu nekk si kanam ñu te 15 aussi tamit. waaw waaw am nañ commissariat bu bees. Hmm. war nañ def ay patrouilles. waaw war nañ def ay patrouilles aussi. Hmm. waaw gis nga lu mel ni Djily mbay gars yi dañuy def patrouille foofu. voilà waaw. lu mel ni ay ay tamit virage dañuy def patrouille mais fii. Mhm. fii duñ def patrouille quoi. Mhm. fii doo dox ba dajeeg fii auto police wala auto ma côté bi. Mhm. loolu moo tax gars yi fii la ñuy làqatoo. kon ñu fi def patrouille tamit dafa baax. ndax euh, macha allah askan baa ngi dëkk fii daal te lii vraiment dafa metti daal. waaw loolu ñoo ngi ñaan daal vraiment ñuy patrouille fii bu baax a baax loolu dafa am solo doyen lii daal vraiment dafa naqar la ak tiis vraiment. voilà jërëjëf dégg ngeen kàddu yooyu sëriñ bi yëkkati ñaawlu ko ndax jullit jullit rek mooy mbokkam te lu ñaaw moom lu ñaaw rek la te lii gisuñ lu ko fi jar ndax alal moom neex na waaye na nga ko ut ci utin bu sell na nga ko ut ci utin bu rafet mm-hmm. beneen bi mooy aussi tamit wax na insécurité bi nga xam moom moo am ci secteur bi ndax amul ay làmp mm-hmm. kon nag mu ngi lancé appel autorité yi mm-hmm. ñu xalaat booru VDN 3 bii parce que li fiy jaar ci oto macha allah dafa bari moom nag fii nga xam ne ni fële clinique am mi nekk mhm. sécurité na buntu këram ak li nga xam ne moom moo sës ci buntu këram mhm. waaye nag foofu la mun a yem parce que domicile privé la parce que fii nga xam ne moom fii la nekk a ñëw na fi heure bu nekk patient ñibbi na fi heure bu nekk ah, accompagnateur ñëw na fi heure bu nekk accompagnateur ñibbi fi heure bu nekk waaye nag nit ku nekk tamit fanga nga sécurité fa nekk foofu ngay mun a def sécurité te moom def na fi sécurité bu mat sëkk sëkk mm. sëkk sëkk kon nag état bi li nga xam moom mooy waru garam mm. moom tamit na sécuriser fi nga xam ne moom mooy VDN bi mm. ba nga xam ne nit ñi dañu fi mun a jaar te yu mel nii ñu ko gisee tamit ñu jéem a sax gëstu waaye oto boo xam ne bàyyi dañ ko fa lu mat ay fani fani fani fani fani fan xam nga loolu bu fekkoon ne tey am nañ seetlu sécurité oto police bu fa joor moon tey dina ne oto bi la la fiy gaare mm-hmm. parce que oto boo xam ne yenn dafa fanaan fa yenn fa ba am fa ñeenti fan ndekete boobu nit ku ñu rey lañ fa def defe naa loolu yëpp mooy manque de sécurité am na fii mm-hmm. kon nag mooy appel boo xam ne sëriñ bi lancé na ko vraiment nga xam ne per de famille la avant tout vraiment di jaboot mm-hmm. te lii neexul kenn ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñun ñëpp ay doomu aadama lañ kon nag ñaawlu bi moom la doon def nii de muy déclaration boo xam ne defe naa ne autorité yi ko dégg ñu renforcer sécurité bi ci VDN 3 bi ndax vraiment nit moom bu amul sécurité amul dara te réew sécurité moom moo ko yor déjà ab lancé na appel lancé ko maire yi bees yi nga xam fal nañ leen moo xam maire bi fal parcelle ak bu Cambérène ak tamit le commissaire bi nga xam moom moo yor poste commissariat bi nga xam moom moo nekk fii soriwul dara dara dara nekk ci unité 15 bi vraiment ñuy patrouiller ci secteur bi ba nga xam ne nii nit ñi buñ fiy jaar xel dina dal moom en tout cas joxe na exemple bi parce que moom périmètre bi nga xam foofu la occupé vraiment moom sécuriser na ko donc loolu mooy déclaration bi nga xam ne sëriñ bi def na ko vraiment à propos de drame bi nga xam ne nii am na fi woon démb fii sur la VDN 3 ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen reportage sur la TMS TV à tout à l'heure